di ku yàgg a taxawu ay ne ci mbaaxuk yàlla ci wàllum ñaan dangaa am ay jafe-jafe ci wàllum këyit moo xam yaa ngi ci biir réew mi wala yaa ngi bitim réew dangaa bëgg sa bunt wër sa gën a gaaw a ubbiku dangaa bëgg bayrab njaay wala bayrab jigéen dangaa tëju cat dala sonal ndax lii ngay bëgg dugg moo gën ci yow waaw wala déet sëriñ Ahmadou Mbàkke borom def gis dalay defal liste xaar wax la ni ngay def dangaa bëgg kaaraange ci sa bopp mbaa li la wër danga bëgg ku la jiboole ki nga nekkal dangay xëccu ay sànce wala ay marché sa yaakaar day faral di tas wala danga am yitte joo munta wax kenn ak lu mu mën a doon gaawal a gaaw jokkoo ak sëriñ Ahmadou Mbacke borom def gis ci mbaaxu yàlla sa aaju dina faj yàlla baaxee na ko mu yore ay jaaro yu gaaw ci li nga bëgg ak ay ndombo ci wàllum bayre wala sax tul gisee ak moom rek sa aajo faju daw leen gaaw gisee ak moom samedi ba mardi ma ngeen ko fekk Dakar Patte mercredi ba vendredi mën ngeen koo fekk fii ci Touba Darou Khoudoss wala sax ngeen jokkoo ak moom ci 77 690 82 74 77 690 82 74 yittey Serigne Ahmadou Mbacke borom def gis moo di tàggale leen ak seeni njàqare dalal seeni xel. rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu te di jël nuyo bi di ko jiital ci sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba àggale naa lii mu liggéey fas yéene liggéeyal sëriñ Touba te ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom ñu ngi toog fii nag tey ci kër sëriñ Seex Lo Amsatu ci ndigalul sëriñ Modou Mayloo xalifa sëriñ Amsatu Lo ak sëriñ Ndaam Lo xalifa sëriñ Seex di leeral ay kàddu rek yu yu gàtt di wax ni ñun day njabootu sëñ Amsatou Lo gépp ñu ngi maase àndandoo di déglu ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke lépp lu mu ñu digal ñu nga ca incha allah lépp lu mu ñu tere itam danañ ko bàyyi ndax kat moom moo fi sëriñ Touba kon te sëñ Amsatou ba muy ñëw fii ci ngaabu ndigalu sëriñ Touba moo ko fi andi ba mu dikkee itam ci ndigal loolee la nekk ba bi mu fi bàyyi ko ay njabootam doomam yi nekk ci ba tey sët yi nekk fi kon loolee duñ ko mos a mooy mukk incha allah lu sëriñ Muntaxa bëgg loolee la njaboot sëñ am sët loo bëgg lu mu bëggul njaboot gi bëgguñu ko lépp luñ mën a wax nag ci ci ci coowi ngaa bu yeeg lépp itam luñ ci mën a dégg nañu xam ne ñun engagé wul njabootu sëriñ am sët loo sëriñ am sët njabootam daal li leen engagé mooy topp ndigal bàyyi ay tere ci loolu lañ teg seen tànk ci loolu lañ fas yéene nekk loolu nag ñu ngi koy leeral bu baax ku ko dégg xamee ko noonu te jàppee ko noonu ndax sëriñ Sidi Muxtaar ba mu fi nekkee loolu la daan digal njaboot gi di leen ko sant loole itam moom lañu ñu mun Muntaxaa di digal di ñu ko sant te loole ci lañ fas yéenee nekk leneen lu ñu wax nag lu bokk ak loolu ak ku ko mën a wax loolee engagé wul njabootu sëñ Amsatu Lo njabootu sëñ Amsatu Lo daal topp ndigal bàyyi tere moom ci lañ nekk tey ci lañ nekk suba wasalaamualeykum wa